jërëjëf euh, mbokk yi ci ànd beeg euh, Walfadjri TV di télévision bi ngeen tànn ci biir télévision yi ñu tàmbale ak yéen ci seen émission bi di fatwa ak oustaz Hady euh, ñu ci dalal itam suñu gan gu tedd di oustaz Abdou Latif Wane mu war ñu waxtaanal ci loo xam ne itam. Euh, xew na di jàmbat muy wàllu ajug màkk ak ni ñu ko war a waajalee kon oustaz Hady euh, ma bàyyi la rek euh, nga nuyoo bu ko defee ñu tatagal suñu gan gi di oustaz Abdou Latif Wane alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala majmaci shuunihi wa xaqiqati kunhi sirrihi sayidina muhammadin bahjatil kawni wa diyaihi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 al oustaz Xasan Diouf al oustaz Xasan li ci nuyoo yi rek gannaaw nuyoo yi mooy joxaat la kàddu gi rek nga dalal suñu gan gi tabaarakallaahu al oustaz Abdoulatif Wane. jërëjëf oustaz Adi comme li nga ko waxee rek ñu ngi fi dalal la borom xam-xam gëstukat ndax ñëpp ñuy euh, topp média yi xam nañu li mu cay def ci ay waxtaan yu am solo yoo xam ne ay orientation yoo xam ne dina gindi askan wi ci lu bëree bare ci seen wàllu dund ak seen wàllu diine. Euh, moom itam ñu ngi ko dalal ci benn sujet boo xam ne sujet bu am importance la ndax ñu bari tey soxla nañu ko rawatina ñi nga xam ne euh, war nañu euh, ziyaara ji baytulaahil xaraam muy wàllu ajug màkk ajug màkk googu nan lañ koy waajalee nan lañ koy prépare ak yenn yóbbal la nit ki war a yóbbaloo pour bu demee ci aj ga loru du loraate waaye itam lépp lu ci nekk ci njariñ dina ko mën a màng ci anam yoo xam ne noonu la ko lislaam tëralee waxtaan wi kon Euh, mu ngi aju ci wàllu woowu muy wàllu euh, ujaaj bi rawatina ujaaju sénégalais bi nan la war a waajalee aj kon euh, oustaz Abdou Latif ginnaaw bi ñu la tatagalee ci plateau bi rek sant la itam ci disponibilité bi ñu bàyyi la ak mbokk yi rek nga nuyu leen bu ko defee nga tënkal ñu ci waxtaan sujet boobu nga xam ne tëral nañ ko tey ci jotaay bi alhamdulilahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baadahu muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu an xulafaihi rachiduna abu bakrin wa umar wa usman wa ali wa jamii alsaxaaba wa taabiina wa man labba wa daa bi daawatihim ila yawmi ddin wa radiyallahu an abaina wa ummahatina wa mashaayixina wa aqribaina wa asdiqaina wa kullu man awsaana wastawsaana biddua ila yawmi ddin ci ñaan yooyu la ñuy nuyoo képp ku ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew di la wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, jërëjëf euh, oustaz euh, Abdou Latif kon rek ñu la ak kàddu waaye itam ñu ubbee ak benn laaj solo yi ajug màkk ci lislaam ban solo ban place la ajug màkk am ci lislaam balaa may ñëw makanatul xajj fi lislaam ma gërëm leen ci occasion bi ngeen ma may ci plateau boo xam ne ñëpp seede nañ ne ku fi ñëw ku ne il faut nga gànnaayu loo xam ne lu koy yokk te ko te du ko wàññi ñëpp euh, rafetlu ko ci réew mi ak ci bitim réew kon borom xam-xam boo fi oo mu ñëw wala muy gëstu ci xam-xam bu fi ñëwee dina am mbégte feeñal loolu wan leen ni nit ñi ñu ngi leen di topp di rafetlu surtout li nga xam ne ñoom ngeen di séqi li nga xam ne moom mooy seen plateau ci wàllu diine lépp nekk ci ay gëstu yoo xam ne gëstukat bu gisee kuy gëstu boo xam ne dina xam ne kii gëstukat la rawatina bu yàggu rek bitim réew ñu bari bañ fa demee ñu ngi lii may rafetlu ñoom ñu ngi koy rafetlu doon ma ko yóbbante foofu nag maa ngi jàkkaarloo ak ñoom ñoom it ñu jàkkaarloo ak Adi ak Assane Diouf dinañ wax ne nit ñi rafetlu nañu ci seen liggéey ci réew mi ak ci bitim réew loolu daal laa dun ubbee soo a ñëw nag ci makaanatul xajj ci li nga xam ne moom mooy ci dund doomu aadama laaj boobu nga ma laaj laaj la boo xam ne daa mel ne bu ñu ko laajee dañuy delluwaat rek ci xam le ne kon lii nga xam ne moom la ñu laaj mën nañ ne du place mais dafa nekk ponk boo xam ne nit ki moom lay mottalee dundam bu fekkente ne sabablu na ko mu am ko moo xam dab na ko ci dundam mu def ko wala mu génn àdduna te sabablu woon ko bàyyi alal ñu mën a jël ci sulu su sulu su alalam daal di ko ko jooxel bu fekkee amuloon nag moom ba génn àdduna bu boobaa bu fekkee ixtiyaar la ci wàll ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi àndul ak Malik ñoom dañ ne foofu kenn du ko jël ci alalam mais nag ñeneen ñi li ñu mujj a dàkkal alar jax te Shafi wax ko daal mooy mën nañ jël ci alalam daal di ko ajal moo xam dénkaane nekk moo xam ne dénkaane ko ndax jullit bu nekk xolam nekkoon na ci pour aji màkk kon aj màkk amul xolu jullit booy ubbi te doo ci fekk oote boobu nga xam ne mu ngi ñaan pour uy ji xanaa kay di ci leeral rek lenn sa nga dégg waxtu yi ñu toll nit ñi bu ñuy tàggoo di dem màkk boo ñëwee ne asan maa ngi dem màkk mu ne boo demee nga oom kon ku ñu oom la oote ki oote mooy borom bi subhanahu wa taala moo ko jàll ci maam ibrahima alayhi salaam ci wa azzin fi nnaasi bilhajji yaatuuka rijala wa ala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiq kon bu nit ki ñëwee ne la maa ngi dem dangay ngay ñaan yàlla ma nit yàlla naa uy balaa muy uy ji sama borom la subhanahu wa taala ndaxte oote bi am na ba pare li des mooy uy ji képp ku ko déggoon kenn ñaanul bañ a bokk ci nga dégguñu ko kon li des mooy sabablu kon loolu dafa mel ni day leeral ci sa wàllu laaj xam ne daal acc taxawaayam taxawaayu farata la taxawaayu li nga xam ne moom mooy biral ne jullit bi war na lu ci dundam épargner balaa muy génn àdduna mu sabablu pour dem baytillaahil xaram loolu laa gis mooy taxawaayu aj moo tax jullit boo gis rek boo koy ñaan bi ñu nekkee xale ba léegi ñaan bi gën a rëy ci moom mooy yàlla na nga dem màkk mu daal di ci kontaan lool ba tax ne beneen bi encore mooy bari na ci Sénégal ci seen xër dangay ngi dem ziyaare ji effectivement ziyaare la ndaxte ngay jëkkee mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu doon màkk ngay jëkkee mu nekk acc mais ku Medine ngay jëkkee te ashrul xajj la mun nga def istinaaf beneen niyya boo xam ne da ngay dugg ci acc kon loolu yëpp day wane ne kon ci am benn pierre boo xam ne di nga ci jam ñaari picc mooy lan am si aj gi am ci encore ziyaara Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon daal wàccuwaayu aj daal dafa nekk ci xolu jullit yi mm. wàccuwaayu aj dafa nekk loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm. ni mu ko bëggoon noonu la ko jullit yi bëggale li nga xam ne moom mooy aj googule ak nag li mu am làmboo ak la ci ne mm. euh, jërëjëf oustaz foofu sax daf may puusaat encore bëgg nga yaatal benn tomb mm-hmm. ndax euh, aj mu ngi mel ne ni ko sénégalais yi déggee déggin bu spécifique la mooy dañuy naan sama ngi ziyaara bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. xëy na ziyaara ji yonent bi bokkul ci Euh, ponk aji waaye terewul ñoom ñu jàpp ne booy dem màkk daal fa ngay tàggoo mooy maa ngi si ziar ji yonent bi sallallahu alayhi wa nga jàpp ne ban orientation ak euh, lan moo tax ba ñoom ñu jàpp jàppee loolu. li ma ci wàll ci wàllu sharia shariyan daal li ma gis mooy ki tàggu xëñ na ci ñàkk xam ak xër la waxee ne maa ngi ziar ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais bu euh, aj sax mën naa ne ziar yonent bi sallallahu alayhi wa mën naa ne ci aj la bokk parce que ku fa demul avant dem fa après. te amul kenn kuy xalaat egg màkkatal mukarram te doo dem ziyaara ji rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kon dama naan ci aj la bokk te jamono bi ngay nekk ci Médine yëpp amul benn farata booy def ci Médine loolu keroog ba nga xam ne yaa ngi génn Madinatu Munawwar kon bi ngay génn Madinatu Munawwar ci Zul fa te kooku 22 kilomètres de Médine la kon kooku ci Médine la bokk kon dafa mel ne ñëw madinatu munawwar ci ngay xam lan moo doon gëddu l'islam dëgg lan mooy gëddu teraanga bi nga xam defal nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak li xam ne am na fa ci ay ngëneel yoo xam ne ute naag ñeenti ngëneel yi nga xam ne am nga ko ci fa nga xam ne fii moom mooy màkkatul mukarram parce que boo demee màkk ci farata bi da nga naan màkk daal di ne mino daal di musdalifa daal di ne arafa naka noonu aussi boo ñëwee ci madinatu munawwar am nga fa masjidu nabi sallallahu alayhi wasallam am nga fa albaqia am nga xamza am nga quba te muruuran nag min qiblatayni te kooku boo xoolee ci historique bi la mais ci war yi nga xam ne mooy sunna da nga mel ne am nga ñeent yu nekk màkk yoo xam ne lii ci biir aj gi nga koy def bu fekkee xas nga ba nga xam ne dugg nga ci aj gi yii boo xasee ba egg si tawaaful xudum lay amee yii nekk farata yii nekk na waaye boo demee nag mun a madinatu munawwar na kese nga fay fekk keroog ba ngay génn madinatu munawwar nag mooy nekk li nga xam ne moom mooy keroog ngay soog a armal pour dugg ci première farata bi li fa am mooy li ñu war a leeral nit buñu bu nekkee ci midin ñu xam ne nañu nañu bàyyi seen xel ci orma place yi nga ko dundee ak lenn ci ifta yi wax hmm. la fa daal di nga daal di armal hmm. kon boobaa armal bi xam ne léegi parce que bi ngay génn Madina ci ngay soog a yéene pour dugg ci aj hmm. mais bu fekkente ne nag sa wax nag yóbbu na la nga ne maa ngi ziyaare ji yonente bi loolu firiwul nañu naan amuloo aj kooku day nekk loo xam ne day nekk euh, wax joo xam ne doo ko mën a amal li nga xam ne moom mooy dalil parce que aj gi nangu même ki aj normal mënu wax ne am na aj mu am rek mooy alaamatu xajjul mabrur mooy an yarja al xaaju zahidan fi dunia raaxiban fi l axira euh, jërëjëf oustaz Abdoulatif euh, dafa am benn tomb bu am solo boo xam ne bëgg naa itam nga taxaw ceeg euh, mbokk yi rawatina ñuy waajal aj gi mm-hmm. waaye itam comme que kenn xamul kañ lay aji ji mm-hmm. dafay concerner ñëpp ku ci nekk war ci war koo déglu muy xaj bi ci Sénégal balaa muy départ yella na mu xam ban aj lay aji ji pour mu bañ a perturbé wu léegi ñetti façon aj yooyu dafay lënt ci euh, bopp nit ñi mm-hmm. nan la ñuy séparer euh, ñetti façon aj yooyu nga xam ne am na ak euh, léeg-léeg ñuy naan ban moo ci gën wala ban moo ci gën a yomb wala ban nga ma ciy tànnaloo lu laaj yu bari lañ la ciy laaj ci ñett yooyu yow boo doon def orientation di leeral ñetti façon aj yooyu lan nga koy leen leeral man boo ci doon dugg damay wax aj daal ci dëkk awlawiya ak afdaliya moo ci nekk dafay nekk awlawiya mu nekk afdaliya bu fekkee da ne nag bii moo gën bii mën kon def nga loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu ko woon hmm. sallallahu alayhi ñetti aj yi boo boolee ñoom ñëpp dañuy nekkaat benn amul bu ci ah. gën hmm. amul benn boobu parce que boo ne bii moo gën il faut nga indi dalil hmm. kon sallallahu alayhi wasallam bu muy jàngal aj dafa ne alxajju arafa kon ki def qiraan ki boole aj ak umra day ñëw arafa ki boole umra ak aj day ñëw arafa ki def aj kese day day ñëw arafa kon ñoom ñett amul benn bu gën moroom ndaxte fu ñuy gënantee ñoom ñu fa la ñuy daje muy arafaat mhm. kon kenn mënul wax ni bii acc moo gën bi am nga droit nag sàkku borom xam ne ko lan nga may laaye biir mhm. boobaa moom mu la laay waaye laay bi mu laaye biir firiwul ne ak googu mooy li nga xam ne moom mooy mooy li gën ci yow mhm. moo tax ñu ne képp koo xam ne ki daal euh, seet nga ñu mel ni comme ni ngeen di waxee ak fi ngeen di jàngalee ñu ne man xallada aliman laqiya allahu saliman hmm. kon dafa mel ni kon li fi nekk mooy nga jéem a roy borom xam-xam xool ko nan la yonent bi waxoon ak li mu jàngale nga topp ko te ba ñu dugg ci nga xam ne dafay indi ay jafe-jafe hmm. kon bu laaj bi nekkee ci boo ma doon conseil ban lan nga may conseil ma ne ah, ak fi ñuy dunda tey actuellement nga xam ne tey xaalis yombul deux millions six cent cinquante mille nga egg xëy na li ñu lay delloo cinq cent rial ren ñii duñ la delloo dara xaalis doyul ki la ki jox billet jox la benn bon bon boo xam ne këyit la nga jóge fleuve wala nga jóge ci àll bi egsi yoruloo dara delloowuñ la dara yoruloo dara nga ne da jënd xar day metti ci yow mm-hmm. kooku mën naa gis ne kon day am jàppandal ci moom mm-hmm. mën a nekk exemple dinaa def ifraat mooy mm-hmm. yéene aj rek bañ a def aj boobu day jàppandal ci moom lu tax parce que boobaa amul lu ko ci war ci gàtt lu tax encore li mu def dafa dëppoog li mu tàggoo parce que bi ngay jóge fi da ne maa ngi aji waxuloo maa ngi aji umra waxuloo maa ngi umra aji kon da ne maa ngi aji kon aj googu boo eggee Medinatu Munawwar ngay génn nga nga ne maa ngi def fa aj kese mooy aj boobu lenn rek ngay def topp ko te encore bu lay jàngal benn leçon nga di ko topp mooy gën a yomb tey nga bëgg def lii bëgg def lële te encore ki ñëw encore biiru aali yéene aj kese daa mel mooy ki nga xam ne ki tegul boppam dara hmm. mais dès que mu jëkk umra rek am na lu mu teg boppam parce que jiital na umra jëkk aj di ñëw dès que mu ne boole naa aj ak umra def leen benn encore am na leen lu mu ci dugal te yooyu yëpp mën na jaxasoo ci boppam kon bu ma ko doon laay biir mhm. ci njàngale dama ko naan mën nga jël ifraat waaye du tee ne bu la neexee def tamattu bu la neexee def xiraan waaye lu ci mënti doon da xamal ne nga aj daal moom nga tàggoo woon aj ba pare yéene bi jeex nga daal di génnaat ci aj boobu dugg ci benn man loolaa loolaa lay beneen bi mhm. ki def ifraat fu mu tëdd di law saa yu yeewoo gis armalam saa yu toogee dinaan ataay gis armalam noonu mu taxoog armal bi dafay taxoog ibaada taxoog jaamu yàlla bi loolu daf koy fàttali mu ngi mu ngi ci jaamu yàlla kon loolu ci sama xalaat bopp la demee du noon ne charia moo la ne nii ngay aji hmm. am ne ki nga xam ne ki am na mu ñëwati encore ne bi muy jógee Médine exemple mu ngi tomboog le 27 zul qaada hmm. wala mu di fa jógee ci le 30 zul qaada hmm. nga xam ne yow boo eggee lan moo la dese ñeenti fan ñetti fan kooku du sonn ak armalam mais bu fekkee kuy liggéey la ku mel ni ñun a toog 15 te woddu yombul da ngay dem fa war a jàngaat woddu te suñu mbokk gàmmu yi gis ni ñuy son mm. ci ci woddu yi mm. léegi code koddaay googu nga xam ne da nga koy bëgg a def uh, fukki fan ak juróom mm. loolu dama laa nga def tamatto tamatto waaw lu tax nga def tamatto pour mën a summee ko def taxalul awal sol sa yére mën a def sa liggéey ba pare armalaat ak nit ñi bés bu ñuy dem waaye yéen ñëpp nag yéen bokk ci borom bi subhanahu wa taala alxajju arafa kon bi ñu nangoog bi ñu nanguwul kenn xamu ko bi gën kenn xamu ko ndaxte sallallahu sa wa sallam waxul ne bii moo gën bi topp ci uh, jërëjëf oustaz Abdou Latif uh, nga ko ndax wane nga ne ñetti aj yëpp amul gën a euh, gënalante hmm. waaye nit ki mën na wax ne bii moom a gënal ndax lii ndax lii bu boobaa nga tànn boobu hmm. muy tamattu muy xiraan muy ifraad hmm. waaye oustaz Abdoulatif euh, yéen ñi yàgg dem di ànd ak ay nit mu nekk ay sénégalais am na loo xam ne seetlu ngeen ko ci biir loolu te année bu jot rek ñu bari luñ ciy wax muy comportement wu sénégalais en tant que sénégalais ci période aj gi Euh, ban orientation nga doon war a def ci koo xam ne xëy na mus na dem walla musul dem laaye biir ci wàllu jikko fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fil xaj mm-hmm. euh, sénégalais boo ko doon laaye biir ci wàllu woowu tey lan nga koy wax xam nga xasan dina jafe xaar nit muy aji nga di wax ne kaay yar la day xa day day day xaw a jafe fekk tardé <laughs> parce que dafa am lu ne loo xam ne dafay dafay jiitu li nga xam ne moom mooy bi nga si laata ex léeg-léeg nga dem fi ñuy fi ñuy ñàkkoo mm-hmm. nga gis nit ak comportement ak ni mu solo bu ñu ne kii màkk la jëm daf lay yéem mm-hmm. te génnagul Sénégal de commencé ñaxtu xat fa ñuy ñàkkoo rek laa fa ñuy mm-hmm. fa ñuy ñàkkoo rek boo leen gisee ceen cool da nga naan kii fan la jëm xanaa kii jëmul màkk laa laa misoo beeg tàppante beeg yaramu neen beeg mees yoo xam ne dafa xaraam nga takk nga takk sa sa bopp sa yaram yëpp nekk ci biti sa baat ca kaw ñu di la dégg te yow e- eggu ga màkkatal mukarram kooku mënoo ko dindi ci moom parce que yar la boo xam ne noonu la mel ci moom mhm. parce que lépp loo xam ne da nga koy jubbanti dafa am moment boo xam ne bu weesoo pour nga dab dabal ko dafay daal di jafe kon man li may am man balaa may laaye biir li may jëkka laaye biir comme que fii daara la mooy ñi nga xam ne ñooy def iftaa yenn iftaa yi ci Madinatul di ci di ci tromper ujaaj yu bëree bëri hmm. day gis benn day dem ba ujaaj yenn saa yi dañ toll foo xam ne fi ah xam ne li may wax dañ dem ba duñu socc hmm. ah dañ ma ne kat bu ma naccee kon damay damay rey xar te awma lu ma jënd xar hmm. mu dem ba ba dootul socc mais nit ki bu fekkee dem na ba gémmiñam ak xet gu naqari ndax malaaka dina ko jege mais bu fekkee socc nga nga nàcc xamal na yow eh, deret bu deret bi génn sa yaram eh, sa sa gémmiñ dafa nekk ndox moo xam ne ndox mu tilim la woon moo génn te loolu loolu dafa génn socc daf la war brosse daf la war lépp daf la war gis hmm. ku la naan man du ma okkat sax te kon ma gaañu hmm. mais boo okkatoo gaañu lan moo la nga dem faju ji hmm. kon daf mel ni kon ñi doon laaj bu njëkk ak di la wax ne bu fekkee nàcc nga da joxe dara ak moom lenn lay mën a doon da ngay mën a or ñetti fan rek teg si juróom-ñaari fan wala am de beneen sanction bu ñu la def wala nga tuur deret mais am maa li ci diggante bi ci ay réal na kooku ki la ko laaj moom moo ko la ko ni Euh, mooy éducation bi nga wax ak bu ñu demee Minan ci toilette bu ñu séddalee ba ne fii la góor ñi nekk fii la jigéen ñi nekk jigéen ñi bàyyi seen place ngir la mission bi ñu tàmm fii ak tàmm li nga xam ne moom mooy jege nit di di ko riisu ñëw ñëw rangando rangando ak góor ñi te duñ si yëg benn kers mm-hmm. da ngay wax ak sax moom ci boppam mu boo moytul mu mu mu xëcc la ci boppam mm-hmm. naan la yéen da ngeen fii rek nangam nang fekk du loolu te yaa ngi ci biir aj mm-hmm. seen yaram tooy seen yëre tax ci seen yaram ñu ñëw di jonjo ak nit ñi foofu nag lenn laa fi gis mooy man dama gis ne ak ci boppam boo ko xoolee jigéen ñi toujours ñooy ëpp góor ñi kon day dellu ci ñi nga xam ne ñooy yor pèlerinage lu mel ni commissaire ñuy wax ak ñi nga xam ne ñooy defar toilette yi toilette jigéen ñi ëpp toilette góor ñi hmm. parce que bu ñu amalee toilette jigéen ñi ak toilette góor toujours il faut euh, taw euh, du am li nga xam ne moom mooy tawaasun hmm. kon foofu il faut que ñoom ñu xalaat ne kon comme que ñi ñooy ëpp kon ñoom ñoo war a ëppale li nga xam ne moom mooy ay toilette hmm. loolu jigéen ñi dañuy mujj bàyyi seen i di ñëw di ñu fekk ci suñuy toilette fi ñu fi ñuy ran ñu ñëw di ñu dugg ak suñuy place te jigéen la nga xam ne noonu lay defaree boppam ak góor ni muy defaree boppam du benn lay jóge ci jigéen ak lay jóge ci góor it du benn te loolu yëpp buñ la ko waxee di la laayi biir mais da dégg duñ la uy sax lool damay wax ne nit ki dafa war a yaru ba pare soog a yare hmm. moo tax la jàngale ki wa isal muallimu lam yakun aadilan tabqa ruhul adalati ala shab ala shababi da ila kon day ne kon nit ñi mënuñu leen yar jamono bi ñuy kon dafa mel ne boo ne dama bëgg a aji at war nga jéem changer sa li nga xam ne moom mooy sa comportement changer sa lamiso changer yëpp soog a ñëw nag ci fa suuxa ak jidaala ak miinante bi ak jëkkër jabar sax nga xam ne dañoo war ñu waruñu jegeñante yooyu yëpp ñu soog fa ñëw soog a mën a indi jikko yi pour mën ko dindi mm. voilà loolu laa euh, mu a sof ci li nga tàmbali mm. euh, loolu nga wax ci erreur yi nga xam ne ujaaj yi dañ koy faral di def ci foo toll ci masaahir yi mm. rek nga gis ñuy def erreur est-ce que borom xam-xam yi amuñ ci responsabilité parce que bu dee borom xam-xam yu jàng fiq xam nga ñu problème da ngay koo xam ne ki dafay def agronomi ñëw di waaraate nga gis koo xam ne ki musul yër téere charia ñëw di waaraate mm. ba muy jàng sax boo xee mu ne man affaire charia du sama affaire si ah léegi ki nga xam ne léegi léegi agronomie la lépp lu jëm ci gàncax moom la xam <laughs> léegi mu ñëw bëgg bëgg waar kii aj faraidul hajj yeeg sunanul hajj loolu mooy problème bi léegi boo ko waxee mu ne mu commencé di la indil fara fancel na ne la Musdalifa ku fi fanaanul amuloo aj mm. te Musdalifa du rukn min waajibatil hajj ñàkk fa wàcc dong mooy tax nga def jabru damm mais nisfu leyl boo xasee bu dugg wala guddi gi dugg mën nga am kooku ñoom masaayil arba ñoo ci yow nga ne képp kuy fanaanu amuloo aj fan nga ko teg mm-hmm. Mm-hmm. dégg di nettali rek la man yooyu laa gis ne mooy danger bi kon man li may wax toujours man ci ñi nga xam ne ñooy amme yi maa ngi wax ak borom ulama yi nga xam ne ñooy waaraate te ñoom seen bopp ba ñuy def seen taxasus ba ñuy jàng wallahi def ñu koon ci charia musu mm-hmm. leen intéressé waaye léegi nag comme que yow musu la intéressé mais ñi mu intéressé bàyyi bàyyi leen nag ñoom ñu ñu jottali ko mais nga après nag bëgg a nekk mufti ba di ci waat di joxe ay numéro ñu di la oo ci pet te kenn wax lan ne ñoom ñoo leen di encadré ñaareel mm-hmm. dañuy mm-hmm. ko farata dañuy fekk sunna daf ko farata wala sofaan wala taxaw kat te maa ngi gis daaw am na dafa taxaw ma di ko xool ma ko yàlla mm-hmm. euh, sama sama xarit dama lay laaj rek te yàlla li ngay wax ni tegoo ko fen naan képp ku fi fanaanul amuloo aj ma ne la li nga wax loolu mooy sa dalil ma ne man ma ne ko déet waxuma waxu fii ku fi ñëw dañ laa yeb mais dama ne pour wax ji nga wax dafa rëy ku fi fanaanul amuloo aj même yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee Muzdalifa daa jiital lenn si ay saxaaba bu fekkoon fanaan bi lu war la kon du jiital ñenn ñi moo moom mu des kon mm. kon le fait que mu am ñu mu jiital moom mu toog am na lu am na lu waral loolu mm. kon boog balaa nga naan lii day yàq lii day fekk nga dugg ci mais kon arkaanul xaj yi ihram bi la ak saayu bi ak xudur bi arafa ak tawaaful ifaada hmm. Hmm. yii mooy li nga xam ne moom mooy bu dee tawaaf aussi ñett la bii tawaaf moo ci rukn mooy ifaada hmm. benn tawaaful widaa bi kooku kooku kooku sunna la xudum ba euh, kii tawaaful xudum sunna la mais tawaaful widaa waajib la ci bu fekkente ci min naahiyati euh, euh, ki xanafiya moom dafa def waajib mais ñenn ñëpp d'accord nañu boo ko bàyyi yu jubar bi dem waaye bu xa wax xamoo loolu nga jël tawaaf yi bëgg leen att nag tawaaful ifaada mais du sotti nga ne encore ki def ifraat amul amul droit umra ku xas ba def ifraat ci jamonoy aj amuloo droit umra <laughs> dugg ci beneen masala wax ne bokkul ak masala bi nga dugal yooyu man moom moo tax man ñi ma yërëm mooy ñi nga xam ne ñooy wax ak ujaaj yi di wéet ak ñoom ci néeg di leen wax loo xam ne óor na leen a jànguñu ko mm-hmm. waaw loolu ah, beneen loolu nag dafa nekk luy daan jërëjëf oustaz Abdou Latif muy waxtaan wu am solo dina am tomb sax yuñ ci euh, ñëwaat waaye oustaz Adi mm-hmm. moom euh, oustaz Abdou Latif junj na ay tomb yu am solo mm-hmm. yoo xam ne war na mën a nekk yóbbal ci ku yéene aji ji màkk Euh, yenn yoo xam ne jàppoon nga ne loolu la te nekk fekk du loolu nga war ko corriger ak li nga xam ne xamoo woon ndax séparé na diggante lan mooy waajib ak lan mooy rukn te bu doon euh, beneen waxin nga nga ne yëpp euh, ñaari baati benn la yu sew sew yu bari ci ak gi yoo xam ne ujaaj bi war na ko xam balaa mu fiy jóge kon euh, lan ngay sof ci li nga xam ne oustaz wax na ko ci lu aju ci wàllu laaye biir xaaj bi ba balaa muy dem daal fekk am na gànnaayu xam-xam boo xam ne dina doy pour yóbbalu aj gi euh, oustaz gannaaw bi sante suñu gan gu tedd gi tabaarakallaahu al oustaz Abdou Latif Wan ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne indi nañu ko ci aj ndax boo ko déggee muy wax rek da nga xam ne moom jàng na ko waaye gannaaw bi mu ko jàngee tamit dafa ko pratiquer ay yoon ku mel noonu nag boo ko dalalee dafay indi luy askan wi di dollee ko waaye lu indi loo xamante ni askan wa dañ cay dolli dara moo tax waxtaanam wi tabaarakalaaw ferankulaayu na yóbbal na waaye at yéene képp kuy dem daal lii sa première dëggu bi nga war a jéegi mooy nga yar sa bopp nga yar sa bopp ci sa wax yar sa bopp ci sa colin yar sa bopp ci sa comportement yar sa bopp ci sa jëflante ak àdduna ba ña ngi fay dajeek ñàkk yaru googu nag dafa fis ci lu bëree bëree bëree bëree bëri dana fés sax ci boo demee ci hangar ba nit ñi nañuy préparé mm-hmm. dana fés sax boo demee ci aéroport ba ñuy xaar avion ba te ñëwagut mm-hmm. dana fés sax tabaarakallaahu buñ demee ba commencé enregistrement yi ñu war a génn jëm ca kaar ya hmm. ak buñ demee ba dugg ca biir avion ba ak nañuy coowee ca biir ak nañuy toogee ak nañuy jaabante ak nañuy jëflantee ca biir toilette ya te loolu lépp ñu ci biir yëpp hmm. ñàkk ñàkk ñàkk yaru la hmm. moo tax daal première bi nit ki war a njëkk a yóbbaloo balaa dem màkka mooy yar moo tax yàlla ne wata zawadu fa inna xayra zaadi taqwa taqawaa jooju nag boo xasee am rek am nga yóbbal bu dëgër a dëgër a dëgër bu amul nag euh, dëgg dëgg da ca dugal lu ca bokkul mbaa nga génn ci lu ca bokk te lii boo amee rek mu yàqu ñaareel bi ci waxtaanam tamit ñiy encadré nit ñi buñ jàpp ne màkka miin ko rek la yàgg naa dem dem naa demati naa kon nu ñuy ajee xam nañ ko mm-hmm. màkka miin du ca tax a xam dañ koy jàng mm-hmm. ngay jàng arkaan ya xam ko xam tamit arkaan bu ne waajibaat yi mu ëmb mm-hmm. di ko dogee doree ci xarmal ay waajibaat yi mu ëmb yoo xam ne boo ca bàyyi da ngaa war a jàng deret ak yi nga xam ne boo ca bàyyee doo jàng deret mm-hmm. nga xam tamit saayu bayna safa wal marwa waajibaat yi mu ëmb mm-hmm. nga fexe tamit ba xam maanaam euh, taxawaayu arafa mm-hmm. ak lim ëmb ci ay waajibaat fexe tamit ba xam tawaaful ifaada ak lim ëmb ak dafa bëri ay yum ëmb yoo xam ne boo ca bàyyi am na ci yoo xam ne faaw nga jàngee ko deret boo amul deret Euh, nga woor ñetti fan soo ko amul nga leel juróom benn miskin kenn ku ne nga jox ko ñaari mudd hmm. kon dafa am ñetti deret yoo xam ne moom la tuur ci aj ci njëkk mooy ko xas armal dañ lay tere nga rëbb rab yi ko jug boo ci rey dañuy seet bu mu xaymaag ci rabu kër yi nga fay ko kooku tuur deret la benn ku dëkkul màkk nga aj aj ak tamatoo nga def xiraan da ngay tuur deret ku aj tamit waajibaat yi nga xam ne moo nekk ci aj taw mu nekk yoo xam ne boo ca bàyyi dañ ko war a jange deret boo ca bàyyi da nga koy jangee deret boo amul jangee deret ba nag nga woor ñetti fan soo ko mënul nga leel juróom benn fukki miskin mm-hmm. même tamit xiraan bale wala tamatoo bale soo amul loo tuure deret waral foofa ñetti fan boo ñibbisee nga woor juróom ñaari fan moom la alquran tilka asratun kaamila mm-hmm. kon aj duul duul miin duul yàgga dem dugul miin màkka mais dañ koy jàng xam-xam xam-xam la laaj moo tax yóbbu li ñu yóbbuloo ci aj daal gannaaw yaru mooy fexe ba nga am xam li wax tamit am na solo bul dem rek ku ne miin naa màkka rek wax la rek nga jël sa nopp gi di ko déglu seetal ñi am xam-xam nga leen di laaj yàlla ba mu ñuy laaj loo ko dafa ne fas alu ahla dikri in kuntum laa taalamun hmm. waaye nag ko ku xamul boo ko laajut hmm. boo ko laajee problème rek lay doon hmm. euh, moo tax kon li mu wax daal am na solo lool nit ñi bàyyi ko mu am yu mu ci sof rek après dooru ñëw ci laaj yi ñëw ci mbind bi waaw sax euh, li ma bëggoon sax nga sof ko ci oustaz Abdou Latif dafa am beneen mbir boo xam ne ginnaaw bi ñu waxee atte ak nit que nan la ko war a xamee pour war ko mën a def dafa am benn jafe-jafe boo xam ne at mu jot mu répété wu ci sénégalais bi muy wàllu yóbbal léeg-léeg bi bu nekkee bu ne cëpp a war a la mu yore woon ci xaalis mu wecceeku ko riyaal bu duggee ci bitig ba ñu ne la bi ñaar ñaar lay jar nga yaakaar ne ñaari dërëm la nga jënd ñu ne la bële ñett la nga jënd ñu ne la ñeent la nga jënd nga seet sa gafa ko fekk lépp jeex na. te mm. fekk demaguloo ci aj gi. bu ko defee tolof tolof boo xam ne day dal di la war a ànd ak lu mag weer te fekk yàlla newoon na man istataa ilayhi sabilan la waxoon loolu ban orientation itam nga ciy def uh, nit ñi ci wàllu seen yóbbalu matière bu surtout muy gën a ajoot ci ren xam nga ren CFA bi dafa wàcc trop trop trop trop. par rapport ak Real bi. ah euh, CFA bi dafa wàcc trop par rapport ak Real bi. Hmm. Euh, boo fa demee daanaka liñ lay wecc daal du la du la njëriñ dara. Hmm. beneen bi encore ren ñu baree bari duñ leen delloo loo xam ne dañ ko doon yor. Ah, da ngay dem kilo yóbbu moo lay moo lay toggal exemple bu la toggalee te togg bi nekk togg naar noo ko lekk te te li nga yor bariwul day xaw a day waar. donc kii aj daal na xam ne warul waxaale di jënd lu muy def ci walis wala ci saak te ba pare. Hmm. parce que ba muy tàggoo waxul ne maa ngi jënd. Mm-hmm. dafa ne maa ngi aji. Mm-hmm. comme que da ngay nag li tax nga ma a aj mooy xaalis bi nga yor. Mm-hmm. sa camarade sa camarade boobu dafa di diis toujours ba aj gi jeex mooy sa camarade nga door ko woyofal waaw mais bu fekkee saa yoo génne indaali mbuus te mbuus mi téere alxuraan du ci mm-hmm. nekk mm-hmm. téere xadis du ci nekk ñoom ku ci ñëw indi mbuus sotti boo jullee ku ñëw indi sotti léegi su ma xam naan dañ ma dañu dagg sama camarade fekk moom moo dagg camarade léegi ñu dañ maa sàcc fekk moo sàcc boppam yooyu dafa nekk mbir yoo xam ne ñii dem ñoo war a xam ne dañu ñëw pour aj man li may gën a yéem boo taxawee ci buntu Sénégal yi yi di dem Médine kii li nga xam ne moom mooy porte bagage dafa fees del del ak saak fees nga mel ni jënd lañ ñibbi mm-hmm. Mm-hmm. te duggoogu te duggoogu ñu ci aj mais kooku il faut mu am ay jafe-jafe normalement bu ñuy départ Médine kaar yi saag ni rek la waroon yor mm-hmm. waruñu départ dara ci nga xam wëlis la wala saag mag la mais da ngay gis kaar yi dañuy rey ba mu fees ba yenn saa dañuy ut sax yeneen oto toftal ci ay bagages pour pour mu yóbbu leen màkk. te du ci aj te fekk euh, la nekk ca Medina yëpp am na ca màkkal mukarrama fa la gën a yombe te bu bu aj gi di waaj a jeex. fa la gën a yombe ci lay gën a yombe parce que xam nañ ne ñoom marchandise boobu aj mm-hmm. nekk noonu ci jamonoy aj. Mm-hmm. nekk ko foon euh, bi bi aj gi ñëwul. Mm-hmm. ñoom ñoo changé dañuy dañuy déformer boutique yi dugal ci marchandise pour pour jaay ko jaay pour kon euh, ko Medina fa la gën a yombe li ngay jënd màkk jënd ko jënd fa la gën a yombe kon xaar ba ba safara te jeex nga dese sa xaalis ànd ak xel mu dal ci ngay gën a xam li nga jënd ci lay gën a nekk qualité du nekk quantité mais li ngay jënd ma dim toujours quantité lay doon te yóbbulu màkk nag léegi mu ngi Castor yóbbulu màkk mu ngi Sandaga yóbbulu màkk yëpp kaa ngi ci dëkk waaye nag euh, sénégalais bi dafa bëgg nag loo xam ne day naan lii ma Madina laa ko jëndee waaw mais mais jógewul Madina <laughs> Chine Chine la jóge hmm. ak Corée ak compétition <laughs> yaa ngi dégg <laughs> mais mais jógewul foofu. ñoom dañ ko def ci ay avion indi ko fi di ñu fa dogaale di ñu ko jaay. Hmm. mais jógewul Médine parce que Médine defar defaruñu loolu hmm. <laughs> kon kon kon hmm. il faut ñu xam ne comme li suñu wax rek. am na loo loo xam daal dafa tax ci Sénégal yi. kurus bi kurus gii daal Médine laa ko jëndee. ah mais mais foofu. déedéet foofu dëgg yàlla. foofa ah, daal commerçant moo ko indi pour jaay pour jaay ko rek. sam-sam am na lu jóge foofu. tàndarma sam-sam ñaar yooyu ah, waaw tàndarma sam-sam lu ëpp 9 million de dates mu ngi ci Madinatu Munawwar hmm. macha allah foofu la fa nekk tànn macha allah hmm. zam-zam bi aussi fa lay jógee leneen lu dul loolu am nga ka kastoor am nga ko fi nga xam ne fii moom mooy Sandaga hmm. kon bu jarul sonn wax dëgg yàlla euh, euh, jërëjëf oustaz Abdou Latif waxtaan wi am na solo euh, yiñ ci war a wax itam bari na oustaz Adi ci wàllu pèlerinage gi waaye xam naa pour tëj pa xët googu bëggoon naa rek yéen ñaar ku ci nekk wax ci benn tomb boo xam ne ci ajug màkk gi la bu nit ki aji jee ba def farataam ba dellu si Sénégal am na sax yeneen jafe-jafe yoo xam ne bagage yaak retour yaak ëpp na kilo ki mel noonu ngay yenu saag di di football saak di boot saak ak yu mel noonu. Mm. yooyu yëpp xëy na du ñàkk nit mën cee wax. Mm. waaye beneen ba mooy nit ki yenn saa yi bu demee ba ñëw beneen xew dikkalati ko muy wàllu nganale ga mm. aada yooyu nga xam ne nit ñi dinañ koy euh, dinañ ko ci ñambaas. te léeg-léeg mu niroog luy diis ci ñoo ci ci nit ñi ban orientation ngeen ci war a mën a def oustaz ah, dee man sama wàlla de lu gàtt laa ciy wax hmm. euh, dañ ne daal ki aji jamono bi muy aj mu ngi tudd xaaj hmm. jamono bi mu ajee ba pare mandargay xaaj la war a yor hmm. euh, buñ ne alxajjul mabruur laysa lahu jaza illa al janna moo il faut mu nekk mandarga wax dafay feeñ ci xaaj ginnaaw aj waaw loolu il faut nag moom mu xam ci boppam ne fa mu newoon la fa mu doon tëdd ak la mu doon laal ak lu mu doon buuxante lu mel ne xajarul aswad ak kaaba ga ak zam-zam ba yooyu mu doon jël ay leer yu nekk ci yaramam la mhm. doo jël sa loxo teg ko ci ndijooru borom bi subhanahu wa taala lu mel ni xajarul aswad wala nga dem balaay kaaba gi ñëw ci kula araam nga ñibbisi ñëw di ko teg ci loxo mhm. kon xamoo xamoo li nga xamoo li defee woon mhm. kon i faut ñu xam ne ngëneel li nga am nga xam ne tey dañ ne pierre noire boobu nga xam ne seen nga ko jamono bi nga xam ne yaa ngi aj sax nee nañ la jaw sax ngay buuxante boo ko ne bismillahi allahu akbar hmm. yaa ki ko embrassé yéen a am ne teg na ci loxoom hmm. yaa ki ko bi waru la hmm. lépp loo buuxante ci aj ba jot ci amuloo ci tiyaab parce que lépp looy buuxante am na lu lu mën a remplacer buuxante bi mooy nga junjee ne bismillahi allahu akbar ñu ne jël nga sa loxo teg ko ci loxo ndijoor borom bi subhanahu wa taala ne boobu nga xam ne bi mu fii ñëw moo gënoon weex tey suñu mu bëyi ñuy sol mais lan moo lan moo tax weexatul noonu yàlla ne weesu na foofu munu leen ko woon sax xool dafa weexu nu mun leen ko xool man maa dem wàññi ko ba ngeen mën ko xool ma bàyyi si nag li nga xam ne mooy sama leer waaye yàlla may la loolu nga dem yii yëpp nga sonn ko ci aj ak li nga daj ci aj nga ñibbisi si amoo loo def loolu koo xam ne ki daganu la waxuma la loxo mais lex ak lex nga de ko akalaat hmm. man loolu laay laay biir samay mbokk yi hmm. bu ñibbisee ñu xam fi ñu jógee fan la Mm-hmm. jàkk yi ñu doon jógee wax dëgg yàlla ay ay junni ak tiyaaba lañ fa jëlee mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam bés bu nekk téeméeri tiyaaba ak ñaar fukk ko ñu séddale ko ci li nga xam ne mooy diggante kuy kuy war kaaba gi diggante kuy naaf ak diggante kuy xool kaaba gi mm-hmm. waaye yooyu yëpp sa bët di ko xool nga ñëw nag ñibbisi di ko teg ci lu araam di dem ci lu araam lépp loo xam ne defoon nga ko daanaka da koy daal di yàq man mm. looy la laay biir sama mbokk yi daal mm-hmm. bu ñu ñibbisee ñu xam fa ñu demoon daal ci mm. dëgg da ute naag fa mu demoon ci àdduna mm. fii place la boo xam ne bés naa dégg Cheikh Baraxam yal na ko yàlla yërëm almarhum mm-hmm. en 82 muy mm-hmm. waaraate foofu ci Milan ci benn bu ñu bu ñu dajoon mooy fi ñu leen invité noonu léegi muy waxtaan mu ne mos na dégg ci Cheikh al Islam muy wax ne di di yëpp ay taalibeem ci méttu mun a war mu ne foo teg sa tànk xamal yaa ngi koy teg fi saxaaba yi tegoon seen tànk mm-hmm. boo taxawee ci baqi a xamal yaa ngi teg sa tànk baqi a fi saxaaba yi taxawoon di mm-hmm. boo demee Uhud yaa ngi taxaw fi saxaaba yi kon fa nga tegoon sa tànk fa saxaaba yi tegoon seen tànk nga teg sa tànk kon war nga am teggin war nga am noomel kon sa tànk gën na tànk bi nga jëkkoon am bi ngay laata ñëw màkkatul mukarram mm-hmm. kon diraasa yooyu ak duruus la ak li ñu aj ci ginnaaw aj la war a feeñ ginnaaw aj la alaamatu xajjul mabruur an yarji alxaaju zahidun fi dunia raxiban fi l axira waaw ki nga xam ne ki dafa aju ba ñëw daal hmm. comportement war na ne kii lu tax mu mel nii ñu ah, ku nekk naan man de yàlla aju ba mel moom hmm. kon daa mel kon ñibbisi bi mooy wane na fa nekkee woon hmm. waaye doo ñëw mel ni xam ne jóge waloo kon loolu yaa xaalis la Mm. Oustaz Hady ci même laaj bi rekk euh, nga tënk wàllu woowu xasan laaj bi ferankulaayu na mm. nañ fexe bay aji màkka te bañ a bokk ca ñay dem màkka mm. soo demee màkka rek yem ca soo ñëwee dara du soppeeku ci yow li nga doon def ci lu baax dara du ca yokk li nga doon def ci lu bon doo ca bàyyi dara waaye boo aji woon màkka nag ca na ko yàlla bëggee ca nam ko diglee nga génnee ca bakkan génnee ca tur génnee ca daraja génnee ca ngistal soo ñëwee lépp loo doon def ci lu baax dana yokkute sax lépp loo doon def ci safaan ba tamit da nga ko bàyyi su boobaa nag nga am li yonent bi ne woon xajjul mabruur laysa lahu jazaa illal janna aj guñ nangu payooram du dara lu dul dugg jana aj guñ nangu nag ñi ngi koy xamee ci nit ki bu ajee ba ñib si bu ajee ba ñib si yi woo moom doon def yokk li mu doon def ci lu bon mu bàyyi ko nga xam ne bàkkaar bu mu defati da koo rëcc waaye nekkul bu mu toog di ko togg kooka mu yëg mu ñàkk yëg ajam nga yàlla nangu na ko sa yàlla nag yàlla nag bu nangoo sa aj rek boo dee nga dem aljana kon loolu rek mooy di ci am solo nañ fexe la sëñ Babacar si doon wax yàlla na yàlla yokk leeram dem màkk ak aji màkk duñ benn hmm. suñu ajee màkk rek alhamdulilah rabbil alamin bu ñëwee suñ jikko yépp dana soppeeku hmm. waaye buñ demee màkk rek te aji wuñ su boobaa suñ ñëwee suñ tur mën naa yokk waaye suñ jëf ju baax da du yokk xasan hmm. jërëjëf oustaz Adi muy baat bu gàtt te am solo dem màkk ak euh, aji màkk cest à ki dem màkk ba ñëw la muy nettali mooy taax ya ak ginaar yaak lekk yaak naan ya ak béréb bëna mu rafet ak oto ya foofu lay yem waaye ki aji ji màkk gis na leneen lu weesu taax ya gis na leneen lu weesu lekk yaak naan ya waaye euh, dafay jàpp ne daal ganu yàlla la woon boo xam ne bi mu demee itam am na loo xam ne yàlla yóbbale na ko ko lu ko mën a jariñ ci lu des ci dundam kon euh, ñu ngi leen di sant yéen ñaar oustaz Adi oustaz Abdou Latif ci waxtaan wu am solo dellu gërëm itam oustaz Abdou Latif ci disponibilité bi waaye li tàmbali la waaye waru fee yem incha allah ëtt bi seen ëtt la ndax euh, dinañu soxla borom xam-xam yu mel ni yéen am expérience ci terrain bi ñëw di orienté nit ñi ci loo xam ne lu aju ci seen diine la ak seen wàllu dundin. Mm-hmm. ñu la ci sant baax a baax di lay gërëm. Euh, Oustaz Aji bu ko defee ñu ñëw ci ñaareelu xaaju émission bi muy euh, lu aju ci wàllu laaj yi fi ñëw kii Oustaz Aji dafay laaj nee na dafa am daal euh, soxna soo xam ne daf ko takkoon waaye lu jiitu mu koy takk amoon na boroom kër borom kër ga gaañu moom mu takk ko ci ginnaawam doom ya daal bi ñu demee ba ñu màgg ñu ñëw ne dañuy nangu seen yaay yóbbu ko seen kër. Mm, ba def nañu loolu ba exécuté nañ ko ba dem na léegi muy laaj euh, lan mooy atteb lislaam ci loolu euh, Oustaz Assane atteb lislaam bi rek mooy doomam yooya def nañ lu bon def nañ loo xam ne tamit lu xaraama xaraam la ndax nangu nañu jabar yi jàmbur buñ nekkee di seen yaay tamit te mayoon nañ ko ci lislaam jaar fañ waroon a may mu joxe can mu ami seede ñu nekk ci sëy ba moom mooy dem rek ba ne bëggatuma su ne moom bëggatul bu neexee jëkkër ji mën na koo yewi ne koo bañ moo la gën a bañ mbir ma jeex su fekkee nee na mënul koo yewi mën naa def moom lu ñuy tuddee xuloo muy summee ko summee ko nag ci mazhabu Malik mën na koo laaj lam defoon ci moom mu delloo ko ko mën na koo laaj lu gën a néew loola mën na koo laaj sax lu ëpp loola ñett yëpp luñ ci d'accord bu ko ko laajee lu mu ca joxe rek sëy ba tas na mu dem jàpp yedda bu dam jeexee nag libéré libéré nañ ko fu ko neex mën naa dem waaye nag fekk jabari jàmbur nga ne sama yaay la rek mu nekk ca biir sëy ba nga nangu ko te jëkkër ji àndul ca loola oustaz bàkkaar bu mag a mag la hmm. jërëjëf oustaz euh, kii itam dafay laaj nee na euh, iddatul wafa koo xam ne dafa génn àdduna naka la jëkkër ku génn àdduna yeddaam nekkul benn ndax koo xam ne jëkkëram dafa génn àdduna bàyyeekook dara mu am lum àndak ak kooka yeddaam bokkut ak ki jëkkëram génn àdduna te bàyyeewul ko ak dara ki jëkkëram bàyyi génn àdduna bàyyeekook dara bu teqali kook la mu ànd ak rek yeddaam jeex na donte tey jëkkër ji dafa génn àdduna midi midi diis moom mu am doom yeddaam jeex na su boobaa midi demi mën nañ koo may wala midi vingt wala midi quinze moom la alquran ni wa ulaatul ahmaali ajalahunna an yadaana xamlahunna foofa nag talaaq ak wafaat ñoo fayam xatte ci seen idda iddatul wafaat ak iddatul talaaq ñoo yem foofa su fekkee tamit jëkkër gi dafa génn àdduna bàyyiwut ko ak lor su boobaa charia day wax na yeddaam comme gor la ñeenti weer ak fukki fan boo amee ñeenti weer ak fukki fan rek yeddaam ja jeex na su fekkee dafa ànd ak lor nag faaw mu teqalikoog lam taqoog bu loola teqalikoog moom yeddaam jeex na kon ñaar yi benn rek la ci mën doon Moussa Xasan mhm. jërëjëf oustaz euh, Adi kii itam dafay laaj euh, nit koo xam ne dafa ñëw ci jumaa ji pour julli ajuma mu fekk xutba nañu ba pare te dañu ne xutba boobu moo remplacé ñaar rakkaay yi muy laaj ndax euh, dañuy naan yoolam wàññeeku na wala dañuy naan julleem wàññeeku na mu war koo jàng wala comme fekkee na julli ga rek te julli mu ngi commencé ci allahu akbar yem ci asalaamualeykum mën nañu wax ne am na jullig juma du ko baamooti tusubaar du ko baamooti ci jeneen juma waaye mën nañu wax ne nag jumaa ju manqué la am ndax yonent bi sallallahu ba muy jàngale yoolab juma dafa ne ku dem ca waxtu wu njëkk wa am nga yoolab ku jaamoo yàlla gëléem bu ñaareel ba ku am am nga ku jaamoo yàlla nag bu ñetteel ba gàtt bu ñeenteel ba dem na ba ganaar bu mujj ba nag mooy nen nen nag mooy ñëw fekk ñuy xutba wala nga fekk ñu xutba ba pare nga ànd ak ilimaan ja ca ñaari rakkaaya wala sax nga jot benn rakkaa ba bu paree nga fay benn rakkaa boo jotul dara nag bu imaam sëlmalee tusubaar ngay sañ a julli kon daal ku fekkeewul xutba ga waaye fekkee nga julli ga am nga jumaa ba du jar baamuwaat ci jeneen jumaa du jar tamit julli xaatu subaar waaye nag wax dëgg yàlla ki fekkee waxtu wu njëkk ëpp yool ku jërëjëf oustaz euh, Adi kii itam dafay laaj ndax euh, nuyoo farata la xasan nuyoo sunna la waaye fay nuyoo ci boppam moo nekk farata moo tax alquran fay nuyoo moo nekk ci alquran moom lañu ñu digal te ulama usul dañuy wax ne al amru yadullu ala al wujub ma lam yusarrif te bi alquran wa ida xuyitum bi taxiyatin lu mu ca teg fa xayoo bi axsana minha aw rudduha faxayoo bi ahsana minhaa jooju nag moo tax fay nuyoo nekk di farata nuyoo moom ci boppam tamit wa idaa hoytum bi tahiyatin nag la wax moo tax kon nuyoo nekk di sunna waaye nag sunna boobu ak farata boobu buñ dajeexee dañuy wax ne sunna bee ëpp doole farata bi ndax bu ma la nuyuwutoon doo ma mën a fay te kila woo ci yiw moo ëpp doole ki la ci yiw ndax su ma la woowutoon ci yiw doo mën a wuy si ci yiw kon sunna la ak farata nuyoo ba sunna la fay nuyoo ba farata la waaye foofa nag fay nuyoo bi moo ëpp doole maanaam fay nuyoo bi oustaz Xasan jërëjëf oustaz Hady kii itam dafay laaj nee na li ñuy tuddee ci làmmiñu jamono planning familial planning ndax daggan na wala aram na Xasan planning de léppam daganut waaye léppam tamit xaraamut bu ko leeraloon nag ne ci ban planning ñu mën koo ne ko bii de daggan na wala ñu ne ko bii de xaraam na ki nga xam ne day def planning ndax dem na ci médecin médecin bi xool ko ne ko yow boo amatee doom sa bakkan du ko fekkee ndax sa buteetu njuréel sa but sa moom moo feebul attanut ko kooka charia du ko tere mu def planning ñu limité njuréelam koo xamee ne tamit euh, dafa bu amee doom bu commencé nàmpal balaa feral amaat jeneen doom ñu koy tuddee nef lu mën a jëfandikoo luy tax njuréel ga soye ndax doom yi mën a am kartan ndax al muminul qawiyu xayru m mumin kooku mu def planning lislaam du ko ko tere ndax yonantu bi booy seet doomam yeeg sayyidatuna Xadija kenn ko ne magee nga moromam ñetti at waaye nag su fekkee at mu jot nga am doom doom ya duñ ko fekkee yaay ja tamit du ko fekkee planning nag ci ñaari façon yi charia bañu ko waaye planning maa amoon doom doyal naa wax dëgg yàlla kooku xaraam na damaa bëgg a noppalu damay def planning kooku xaraam na damay planning ngir mën cee dëgg di njaaloo ndax du ma am doom ndax sama jëkkër nekku fi wala amaguma jëkkër loola tamit xaraam na moo tax kon planning façon yu bëree bëree bari la waaye boo demee ci fuqaaw yi ñaar yooyu rek lañ ci setti ne moo dagan yi si des yëpp boo waxati rek xaraam na Oustaz Assane. Hmm. jërëjëf Oustaz Adi kii tam dafay laaj nee na euh, benn fajkat la muy docteur boo xam ne dañu ne dafa sàggane benn malaat ba mu génn àdduna léegi nag ñuy laaj ndax kooku dañ koy atte atte ku rëy nit wala euh, am na détail. Xasan euh, ki la wóolu yaakaar na ñëw ne pour nga faj ko wala mu ànd ak malaatam ne fajal ma ko confiance mënta paase loola amaana bu rëy rëy la waroo jiital alal ci bakkani doomu aadama yi ndax doomu aadama yi seen ñoo mën a liggéey alal waaye alal mënta liggéey bakkanu doomu aadama te loolu tamit danay bari lool ci yenn médecin yu sàggan yi nga négliger nit ki ba sa taxawaay ci moom moo manqué ba tax li ko dal dal ko ndax nag dogalab yàlla boo gis boo gestoo gis fa tànk doomu aadama ku mel noonu charia day wax ne comme dafa négliger malaat bi ba mu jaaree ca dee dañ koy attee atteeb ku rey nit ta fekk moo ko tey suñ doon ci lislaam dañuy def xiyaas ci xisaas ca moom mooy fayu ko ku kundi ku rey nit dañ laa war a rey moo tax kon boo demee ci fuqaaw yi dañuy wax ne ñaar euh, ala kulli xaal euh, dañ leen di attee mooy médecin bi nga xam ne dafa réer sol mbubbam médecin te fekk xam-xamam matu mu bind ordonnance bu mu waratoon a bind wala mu opéré nu mu wartoon a opéré ba bakkanam jaar ca des kooku dañ koy jàppee muy ku rey nit te tay ko ki xam nag li mat li médecine laaj yëpp xam-xam ba daje na ci moom la ko ci yàlla waaye nag dafa jiital alal ci faj jaare ca loola négliger malade ba ba bakkanam des ca kooka tamit dañ koy attee muy attee ku rey nit bu ñu doon attee lislaam ku mu ci ñoom ñaar ñi yëpp dañ leen a war a rey oustaz Hasan jërëjëf oustaz Adi kii itam dafay laaj euh, nee na dafa fase dafa am ku fase jabaram fase boo xam ne fasem euh, fase bu àndul ak pay fay la fas talaak baayin léegi nag maanaam daf ko dafa fase jabaram lu jiitu idda bi di jeex lu jiitu idda bi di jeex jabar euh, jëkkër ja génn àdduna muy laaj idda ba nan lañ koy réglé waaw Xasan euh, su boobaa jabar ja dana doon jëkkër ja ndax ci liggéeyam la nekkoon saa yoo fase sa jabar faseem pay li muy yedd bu pareegul nga génn àdduna su boobaa dana ñëw ténji la te tamit dana donn dafay bàyyi lee mu doon def ñëw def ténji naka noonu boo ko fasee faseem bàyyin muy yeddawu liggéey ba jeexagut nga far génn àdduna dana la donn waaye tamit dana la ténji loolu dañu koy tuddee te tadaaxulul iddat yi day am maanaam ci fuqaaw yi am na loo xam ne bu la fekkee nga nekkoon ci liggéey ba bu bees bi mooy mujj konte bale bu njëkk ba dafay mujj màbbu kon ñaari fas yi boo ci fasi sa jabar mu nekk ci liggéey ba pareegut dee far am day bàyyi liggéeyam bële ñëw ci sa liggéey bu bees bi jaatal bi ko tamit bokku ca ñee doon ca alal bu doom amee mu bokk ca ñee doon sumun ba su doom amut moom mu doonnu rubox ba Oustaz Assane hmm. jërëjëf Oustaz euh, Adi euh, kii itam dafay laaj euh, jigéen ñi nga xam ne araam na ci nit ki mu takk leen nan lañ koy tënkee. xam naa bëri nañ bëri koo xam ne mënuma leen a tudd ñoom ñëpp waaye mën naa ko koo tënkal ci ñett dafa am ci jigéen ñi jigéen ñoo xam ne dañ laa xaraam ngir ak jegeñaale am ci ñoo xam ne dañ laa xaraam ngir ak gorowaale am ci ñoo xam ne dañ laa xaraam ngir ak nàmpaale am ci yoo xam ne sax dañ laa xaraam ngir ak diine yooyu yëpp nag boo ko doon farañ fànc dana mat fukki jigéen ak juróom-ñeent yi la xaraam ngir ak jegeñaale dana mat juróom-ñaar moom la alquran xurimat aleykum ummuhaatukum wa banaatukum wa axawaatukum balaa yaat ya jeex nit ku nekk sa yaay xaram na la buñ ne sa yaay nag sa maam dugg na sa maamaati maat dugg na nit ku nekk sa doom xaraam na la suñ ne sa doom sa doomi doom sa sët lu mu sori sori kooka xaraam na la nit ku nekk sa mbokk xaraam na la mbokk ñetti xaaj la ki nga bokk ak ndey xaraam na la ki nga bokk ak baay xaram na la ki nga bokk ak ndey ak baay tamit xaraam na la ba mbokk tamit sa doomi mbokk mi xaraam na la moo xam doomi mbokk mu góor bàyyi ba am doom bu jigéen kooka xaraam na la doomaatam xaraam na la lu mu sori sori sa mbokk mu jigéen mi tamit ni mu la xaraamee ni la ay doomam tamit xaraamee jigéen gi la nàmpal xaraam na la ki nga bokk ak ñi nàmpal leen tamit kooka sa yaay sa mbokkam nàmpaale la tamit mënoo koo takk noonu lay demee tamit euh, ba boo ko doon compter daal lépp dana mat fukki jigéen ak juróom yoo xamee ni kenn ku ci nekk xaraam na la ba mënoo koo takk Oustaz Assane jërëjëf Oustaz Adi ki itam dafay laaj euh, ne dafa dégg ne koo xam ne amul jabar mënul nekk imaam muy laaj ndax yoo loolu ci charte yi la wala chartay ilimaan nag ñàkk am soxna bokkut ca ilimaan ji daal charta ya mooy na fekk muy góor nga déggee jigéen génn jigéen mënta jiite génn julli mënta jiite benn xeet mënta jiite jigéen yi kese mënta jiite góor yi kese mënta jiite ki julleeg naafila mënta jiite ki julleeg farata loolu mooy mazhabu Malik moo ci nekk su ko defee tamit euh, boo demee euh, kiy jiite dafa war a nekk ku am xel dof génn dof mënta jiite ci génn julli kii kii kii jiite su fekkee julleeg farata la dafa war a mësoor ku mësoor mënta jiite xanaa mu julli mu julli julleeg naafi la wala mu jiite ay moromam waaye bu fekkee farata la moom ñi muy jiite dañoo war a nekk ñu mësoor waaye bu loolu amul julli ga du mën a wér dafay bokk ci sarta ilimaan tamit mu xam xam-xam xam li nga xam ne mooy rafet mooy baaxal julli ak li koy yàq soo jamajee war a def xabla nuñ koy defee boo jama jamajee war a def tabaarakallaahu sujoodu baxda naka naka lañ koy defee lan mooy waral yooyu yëpp nga xàmmee sunna ya ak farata ya ak mustahabaat ya ak yeneen ya yooyu yëpp day laaj ci ilimaan nga xam ko léegi nag xam naa bu ñu doon testé suñu ilimaan ni ci yooyu mel noonu dana bëri tabaarakallaahu ñoo xam ne pour ñu matal loola dana xaw a doy waar Oustaz Assane lool waaye sartaay ilimaan daal ñàkk a takk soxna bokkut ci mm. yii yëpp bu dëppoo ci moom rek donte amul soxna mat na mm. ilimaan mm. yii yëpp bu ci moom bu amoon soxna tamit matul ilimaan xasan euh, jërëjëf oustaz Adi kii itam dafay laaj ne dafa am benn xaritam boo xam ne daal euh, dafa bari lu muy euh, saaga muy laaj ban laaye biir nga ko war a mën a def ba nga xam ne dina war a mën a bàyyi loolu laaye biir ga rek mooy saaga daal wax rek la wax jooja nag na ko remplacer tudd yàlla du xewi te du sàppi te dañ ko ci bindal yool lool la yonent bi waxoon sahabi yu ba fexeel ba sa làmmiñ yi bu mu dañ mukk di tooy ci tudd yàlla waaye na ko remplacé julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ci séex yi eh, séexam yi bu mu ca mën baax na séexatu bu mu rek baax na naka noonu tamit na ko remplacé istighfar comme bàkkaar yi dafa bëri boo xoolee gis boo dégloo dégg boo làmbee daj na ko remplacé jàng alquran na ko remplacé tamit wax lu baax waaye nag saaga lu bon a bon la te koy saaga rek bu la delloo saaga mu gën a bonati yonentu mas naa toog mu ne bokk na ci bàkkaar yi gën a màgg ci bàkkaar yi nit kuy saaga waajuram sahaaba yi ne ko ndax nit ki dana bon bay saaga waajuram mu ne ah kay mooy mu saaga waajuru jàmbur kooka fayu su boobaa moo saagalu waajuram te nag foo déggee saaga rek am na koo koy def kooka bu ko delloo ci sa waajur rek su boobaa da ngay ànd ngay gàddu bàkkaar bi gën a mag man daal su ma ko doon laajee biir naa ko wax ne ko daal saaga wax rek la loola mu doon wax muy wax yu ñaaw nag na ko remplacer wax joo xam ne nii ju bon a bon ju rafet rafet la ndax alquran dafa ne wa hudu ila tayibi min alqawli wa hudu ila sirati alhamid loolu la yàlla wax dellu leen ci wax ju rafet wax ju teey te ngeen bàyyi lépp loo xam ne wax ju bon la wax ju ñaaw la Oustaz Assane euh, jërëjëf Oustaz euh, Adi xam naa message yaa ngi continuer di ñëw hmm. waaye fekk waxtu wi itam mu ngi continuer di ñu gën a dab hmm. euh, maa ngi gis lu mat ñaar téeméeri message ak juróom fukk yoo xam ne xëy na buñ ci doon fanaan fii ba suba du tax mu jeex waaye ñu sant ñi nga xam ne ñu ngi ko doon envoyé Moussa Ndiaye moo mujj envoyé léegi ak euh, Basirou Gueye Yacine Sarr euh, ak gay Cheikh ak Abdoulaye Dieng Yaay géey ak Malick Diop Modou Seck ak Malick Sakho ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne kenn mënu leen lim ci jotaay bi euh, waaye ku ci nekk rek indi na sa laaj ñun nag noonu lañ koy toppee rek incha allah ba suñu kamtalaayu kàttan hmm, bu ko defee laaj gu mu jéggi balaa ñuy teg ci oustaz Adi ndax waxtu wi dem nañu mooy kii dafay laaj ne. dafa am koo xam ne maanaam ni ko nit ñi di baaxoo di def ci weeru koor ñuy naafi la di bari jaamu yàlla joo xam ne anamuk naafi la la waaye bu koor gi jeexee rek mu ñu lem bagage dal di ko bàyyi muy laaj ndax loolu yàlla mën na ko jàppee nit mu nekk càggante wala boog euh, profito la woon rek jeex na jeex na xasan jaamab yàlla bu nekk rek war dafa war a fexe ba nekk di rabbaaniyu ba a nekk ramadaaniyu ramadaaniyu mooy bu weeru koor jotee rek lépp luy lu bon nga bàyyi ko lépp luy lu baax nga nekk ca bu weeru koor yi paase nga ajaat kaamil ga ajaat kurus ya ajaat naafila ya ajaat koor ya ba déwénati kooku ku ko def rek ramadaan yu nga boo nekkee rabbaani yu nag la nga doon def ci lu baax faalewoo ca weeru koor lu dul weeru koor ah kay bu weeru koor ñëwee danga koy gën a yokk rek waaye bu weeru koor wane gannaaw tamit lu tax mukk nga bàyyi ko dangay dugg ci wax wa'bud rabbaka xataa yatiyakal yaqiin te yonantu bi sallallahu alayhi ci ñaari xadiis bi sayyidatuna Aïcha moo ko indi xàmmee wutoon weeru koor ak lu dul weeru koor bu set daal dana la fukki rakkaa ak shafa ak witar beneen riwaaya ba ne juróom-ñetti rakkaa ak shafa ak witar ñaar yëpp a wér mi ngi ci Buxaari yu waaye boo ko bëggee dëppale nag da ngay wax ne rek su xatul rek mu naafila fukk ak shafa ak witar bu xatee rek mu def juróom-ñett ak shafa ak witar kon la yañ doon def ca biir weeru koor wa tey la gën a valable tey lañu ko yàlla gën a sant tey la gën a baax ndax boo lëgee lépp lu damm ci suñ farata yi ko euh, naafila ya man koo jàng lépp lu manqué naafila ya man koo mottali lépp lu cay lu ñaaw lu xaw a tilim naafila yi tamit man koo rafetal waaye nag bu weeru koor jotee nga la ca jàkka ya bu weeru koor xasee passé nga julli géey rek bàyyi noona wala boo cay teg doo ca passé doo ca passé safaak witar dëgg-dëgg kooku ramadaan ramadaan nga waaye nekkuloo maanaam rabbaani te wóoru tamit weeru koor wii di ñëw dana la fekkam déet ndax am na fi sa moroom yi mu fi fekkoon yi passé te ba mu ñëwaatee fekkul leen fi kon nit ki dafa war di fuuglu yàlla di def ay ndigleem fu mun di nekk lu tamit di bàyyi tere ca lam ca man bañ koo dàq ci weeru koor rek waaye ah kay bu weeru koor jotee na ko gën a yokk waaye bu mu tax mu bàyyi ko ndax yonent bi kat mosta dañ di tabe ci rawatina weeru koor rawatina maanaam fukki fan yu mujj ya moo raw ngelaw ci tabe ci lépp lu baax waaye kon Oustaz Xasan loolu daal lañ koy laaye biir nañ gën a góorlu xam ne weeru koor bi daal euh, wulaan deux mille quinze ca farata moo jeex waaye koor sax jeexul ndax diggaloo nañ la nga nga nga gunge weeru juróom benn fan yemul ca fii ba weeru koor wi ñëwee boo ko manee weer wu ne nga góorlu ba xoor ci ñetti fan soo tànnee altine yi ak euh, euh, alxames yi di ko woor mu gën a baaxat yi kon koor sax jeexut ndeke waxuma la nag julli waxuma la yeneen yi nga xam ne nii ñoo ca tegu te tamit comme ni oustaz ah, Abdou Latif wan wax rek nañuy xamee mandargaam xaaj bi muy alaamatul xaaj bi noonu la ñuy xamee tamit alaamatu saa'im bi ku mu ci ñoom bu koor ga jeexee la ñuy xam ndax koor gi mu nekkoon yàlla nangu na ko déet wala déet waaye nag waaye bu koor gi paasee rek nga nekkaat mel ni kuñ tënkoon tinki la kuñ yeewoon yeewi la kuñ tëjoon tijji la Eh, ku ñu ajoon aji la nga nekkaat ci say caaxaan yow da ngaa xooroon rek ci xiif ak mar waaye xooroo woon da nga bokk ci ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ilal juu wal atash te loolu ni kon oustaz Hassan eh, su fekkee li des ci waxtu yi. Hmm. waaw xanaa ñu jox oustaz Abdoulatif rek mu tàggoo bu ko defee ñu dal di hmm. tëj oustaz eh, Abdoulatif ginnaaw bi ñu jàngee laaj ak tontu yi. Hmm. xanaa sa kàddu gu jëkk rek bi rek ci ku mujjee ci jotaay bi incha allah. kàddu gu mujj mooy di di leen gërëm. ndax occasion bi ngeen ma may ñuy jàkkaarloog soppe yi ak waa xaramani sharife ni ñu may àndal baytilaal xaram lu ëpp euh, daanaka ay ati at yàgg na mm. ñuy seetaan fi mu nekk nii ak ñeneen i mbokk yoo xam ne aussi ay soppi lañu ci ah, oustaz aadi dëkk Tëngéej di ma yóbbante toujours nuyoo ci ñoom dañu foog toujours dama koy hmm. ah, hmm. hmm. ñu ngi ci macha allahu taala ci ci moo tax bi ma ko waxee démb rek ma ne am na ma waroon dem damay ñëw ngir fekk samay soppi macha allah El Hadj Thiam aussi toujours mu yóbbante ma nuyoo ñu ngi koy sant yàlla ba ñu xamee ñëpp ndeysaan benn lañu loolu daal laay tëjee di nuyu New York yi ba ma fa demee ñu bari dañ ma doon laaj aadi yób yóbbanti ma nuyoo ci moom ñu bari ci ñoom ñu ngi seetaan aussi fi mu nekk nii waa dawtee ni léegi am na ko ma ci oo bu ñu wax euh, Fat Bintu ñu ngi foofu ñu waajal seen gàmm sax daawul si moo koy def ñu ngi ma naan demee nga nuyu ñu oustaz aadi waa New York yëpp ko bokk oustaz aadi ngoog euh, ñi ñi seetaan ci France ak waa Jidda yi aussi ñoom dañuy tiibar émission bi waa Kër Lamine Ñang yi ñoom ñu ngi leen di nuyu macha allah di ñaan incha allahu taala euh, ba ba aj gi ñëw ak jàmm bañ dem bañ dem ba dellusiwaat ñu defaat rek li nga xam ne mooy waxtaan yi nga xam ne mooy am ñu leen di mu taabaa toujours nag ndaxte école la boo xam ne daal man guddi mm. sama soxna seede la ci man lu mm. ma tëdd mukk lu ma guddi guddi te siiwru ma li nga tontu bataaxali parce que ay ay ma baaxis la yoo xam ne mm. dañ ciy jàngi lu bëree bëri daf lay yëm sax yenn saa benn laaj ñëw rek nga gis ni lay indilee maraaji yi indilee ñu ci wax loolu yëpp loolu wane ne itte la bu ñu am ci xam-xam te ñun suñu dund yëpp mooy mm-hmm. mooy jàng ak jàngale mm-hmm. kon boo boo gisee koo xam ne aussi day jàng comme yow di jàngale mm-hmm. il faut mu nekk sa nit loolu daal a leen di ñaanal di leen ñaanal gudd fan ak wér ak continuité ci seen liggéey bu am solo bi léegi di ko ñaan borom kër gi aussi ci li mu yaatale kër nga xam ne ñëpp la ñëpp ñëpp la fiy dugal macha allah depuis ñoom Babacar ba tey ji kon bokk maa ngi nuyu ñëpp di nuyu nag suñu promotion ñi nekkaloon Arabie Saoudite aussi ñi nga xam ñoo ñuy seetaan actuellement ñu ngi docteur Ahmed El Consor asalaamaaleykum wa Mm-hmm. Uh, jërëjëf uh, Oustaz Abdou Latif Oustaz kon uh, ma bàyyi Hassan li may mm-hmm. tëjee rek mooy sant suñu gan gi xam nga mm-hmm. tey sax yoon wi neexul taw na te Tëngéej ak fii sori na waaye ñun ñu ko ñu ko fi invité sax moo ñu fi njëkk ba nga ñëwee di ma laaj ne taxawal ma on suñu suñu invité bi man la ñëw na ndax fekk naa ko ci beneen studio bi ba nuyu ko kon lii day tekki ne diine rek moo ko ñor xam-xam rek tamit tabaarakallaahu moom la bëgg toujours tamit ñu ngi dem Amérique di fa firi alquran ci saawiya maam alaaji Malick bi nga xam ne mbokk ya mm. tabaarakallaahu ñoo ko fa taxawal ñu dem gis ko muy saawiya bu ama am solo ñu mm. def ko juma def ko étage mm. def ci lu jege ay milliards loo xamee ne ni tey ña ngi koy taxawee mu dem di leen fa firil alquran ak ñoom oustaz Ndonga Sarr Ndonga Sarr moo yor euh, fi alquran ak naafile bi ñoo def muhaadaraat waaw def muhaadaraat foofa léeg-léeg maa ngi moom ñu ñu ñu juwalante fa mm-hmm. léeg-léeg day ñëw ba dem ma dem wala ma ñëw ba dem moom mu door ñu dem at mu jël mu dem di taxawee la kon ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm bu baax a baax a baax ci jàppandi gi mu jàppandi bàyyi ay yitteem yëpp ak taw bi tey mu bàyyi ko ba tëngeej loolu lañ koy sant di ko gërëm di wax ne wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, euh, kon jërëjëf Oustaz Hady kon jërëjëf Oustaz Abdou Latif bu ko defee rek euh, mbokk yëpp ñu jox leen beneen dox daje ci seen émission bii di fatwa ajuma alxames ji di ñëw incha allah ci même waxtu wi incha allah euh, laaj yi fi rot incha allah dinañ ko topp di ko càmbar benn par benn ci suñu kemtalaayu kàttan ñuy sant ñi fi yónnee ay laaj ci téléphone ñi fi yónnee ay laaj jaaree ko ci Facebook bi ak ñi nga xam ne itam Euh, ci dañu ñëwal seen bopp indi seen laaj ñoom ñëpp ñu ngi leen di boole cant ak di sant di gërëm ñi nga xam ne ñu ngi ñuy doon toppee ci biir réew ak ci bitim réew euh, sant ñi nga xam ne ñoo doon saytu wàllu technique bi Cheikh Tidiane euh, Ndiaye Cheikh Tidiane jóop Amma Gueye ak kii di Ajaratu Awa Diop njaay bi nga xam ne moo doon gérer grand soir bi ak mboolem ñi nga xam ne taxawee nañu wàllu émission bi di ko exécuté ñu sant leen gërëm leen jox leen beneen dox daje ci seen émission bii di fatwa jërë ngeen jëf ci ànd beeg Walfadjri TV di télévision bi ngeen tànn ci biir télévision yi. fatwa di émission bu leen rajo télévision Walfadjri di defal ay bés bu jot ci waxtu wi ak oustaz Hady